waaw asalaamaaleykum wa ñu gërëm nag euh, naataango yi nekk ci presse bi yëpp gërëm tamit euh, groupe parlementaire yeewee askan wi nga xam ne la président Birame Souleye moom mooy le président gërëm tamit euh, suñu modérateur bi tey ak ñi nga xam ne ñoom ñoo organiser conférence de presse bi yëpp madame Ndiallo li fi ñuy dooree nag tey point de presse bi rek moom mooy lu jëm ci wàllum teg loxo bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci réew mi mbir mi dem ba mel ni nekkatul politique démocratie moom amatu fi comme ni ko Birame waxee ak lu jëm ci wàllum xiifal bi nga xam ne ñiñ téye ci kaso bi ñu gën a bëri bëri yëpp moom la ñuy def de grève de la faim liñ doon bëgg a wax nag président Macky Sall ak lan moo sabab grève de la faim bi nga xam ne nemmeeku nañu ko te détenu ñi nga xam ne caabi daf leen a féete ginnaaw injustement li ko waral moom lu neex a expliqué la parce que kaso nag amul point de presse kaso amul ñaxtu kaso amul dara dara dara loo xam ne mën nga ko def nit ñi ne gars yi tey dañoo wane seenu mer lu dul benn arme kese moom la ñu am mooy xam naa toog xiifal pour wane. jafe-jafe ak jàpp bi nga xam ne kon jàpp nañ leen ko ñu nekk ca gudduñ toll nii nag ku waxte yàlla rek tax détenu yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir kaso bi yëpp mën nañoo jàpp ne que ca ëpp tur gën ca siiw di président Ousmane Sonko moom it mu nekk ci situation bu ni mel ba tax na tey groupe parlementaire yeewee askan wi di naqarlu lu ni mel waaye di sàkku ci ñi nga xam ne ñoom ñoo def lu ni mel génnee ñi caabi féete ginnaaw yëpp te defuñu waxuñu loolu nag. bokkoon na ci li sabab tey ndaje mi ñu ne nag ñi nga xam ne dañ leen a jàpp toll nañu ci junni ak juróom-benn fukk ak benn la woon mille soixante une personnes léegi nag yegg na ci junni ak juróom-benn fukk ak ñaar di mille soixante deux dañ doon wax ay temps naan six wax nañ fi quatre cent léegi dem nañ ba junni daanaka ak téeméer mu nekk loo xam ne lu doy doy waar lu doy waar nit ñi sax dañuy laajte ne. kaso yi nga xam ne dañ doon wax ne dafa fees lu mel ni rëbës ñu ne tubaab bi bi mu ko fiy defar lu tollook ñeenti téeméer a taxoon mu defar ko kaso boobu dem ba daanaka laal lu ëpp ñetti junni ci ay doomu aadama ñu ne jàppaat nañu encore lu tolloo junni ak juróom-benn fukk ak ñaar te dara taxul ñu jàpp leen lu dul bokk ñoo gaa yi gis-gis di nguuru Macky Sall gi boo defee page Facebook ñu jël si la Instagram ñu jël si la nga wax ci rajo ñu jël si la nga wax télé ñu jël si la loolu mooy muut mbaa moot te loolu nag mënul am ci mim réew fii ñu toog rek doy na exemple ñi gën a bëri ñëpp dugg nañ ci kaso bi ñun ñi ñëpp Macky Sall tëj nañu waaye boo tëjee it am ñu ne ci biti wax ji moom ala kulli àllin day bëgg di continuer ñu ñëw nag ci lu bees loo xam ni gëj nañ ko fii gis ñun de suñ génération bi yëpp xamuñu ko mooy jël ay doomu sénégalais di leen gàddaay loo gàddaay exilé ca bitim réew bi ci gën a xëj na siiw moom mooy maître Ngagne Demba Touré nekk un jeune fonctionnaire koo xam ni amagul fanweeri at ñu yàq liggéeyam poussé ko mu def lu ni mel te moom moo siiw mais ñeen fukk ci ay ndaw yoo xam ni actuellement daw nañu te sénégalais yëguñ leen parce que Ngagne Demba Touré nag peut-être nit ku am tur la et cetera et cetera fukk ci ay ndaw laa la wax. yoo xam ne dañoo waroon a toog liggéeyal seenu réew ñoom ñëpp génn nañu daw te dara waralu lu ni mel nag lu dul loolu. ñu ñëw ci ñoo xam ne nag ci biir kaso boobu ba léegi ak ñi nga xam ne dañ leen a poussé ñu génn am na ay doomu aadama yoo xam ne lu mel ni Cheikh Baara lu mel ni nit dof Fadilou Keïta euh, Hannibal jim président Ousmane Sonko ñii ñu leen tuddal fii nii yëpp ak peut-être ñeneen ñoo xam ni euh, xel mën na fattu ñii rek lañ ci lim ñuy wax ne seen bakkan mu ngi ci diggante dund ak dee ñii ñu ne seen genn wàll côté bii marsetul ñii ñu ne mais mu mel ni ñi jiite réew mii moom nekkuñu ay doomu aadama wala ñoom am sensible luñ ci dara mu nekk loo xam ne nag lu doy doy waar ñu ñëw ci waajuru ñu nga xam ne la nattu bi daal tey di waajur yi parents yi nekk ci ay jafe-jafe waaye ñu gën a nekkaat ci jafe-jafe ñoo xam ne nag la ñu ngi dund loo xam ni moo raw sax kaso muy waa diaspora bi xool leen koom-koomu réew mi li doomu sénégalais di dugal fii ci biir réew mi ci doomu alal ci jàppale et cetera et bokk nañ ci ñi téye réew mi économiquement ñoom waa diaspora boobu nga jël sa liste ñu dégg ko ne teg nañ ko ci aéroport international Blaise Diagne ay tur yoo xam ne dañ leen a bind ne ñëw nañ la jàpp ku ñëw màggal si nañ la jàpp même boo màggal siwul boo ñëwee ci réew mi nañ la jàpp mu nekk nag situation boo xam ne lu doy doy waar yemuñ ca de ñu ne buñ yem sax ci buñ ñëwee nañ leen jàpp mais nañ leen traqué ba ci Canada États-Unis France Italie ci biir diaspora bi yëpp ba fii nii biir Afrique ku ñu fi gis nañ la traqué jàppale indiwaat la fii ci biir réew président Macky Sall nag ak waa këram bu doon loolu la ñu dund ca jamonoom kon tey duñ falo ñu ñëw nag ci suñ conférence de presse bi gars yi mayu ñu de pour ñu wax ñi nga xam ne ñoo nekk ci xeex bi ñu bañ a découragé bind nañ ko continuer wax nañ ko continuer moo waral tey ñu ñëw fii fekkuñ fi gendarme yi te gendarme yi nag CS bi ñoom ñoo war di fay location parce que ñoom léegi li ñu fiy nekk moo ëpp fuuf ki ko luwe mu nekk jëf ju ñaaw gendarmerie nag dafa nekkoon loo xam ne dañ leen doon wooye ne c'est la crème de de de notre armée et cetera et cetera la gendarmerie mais dañoo dem a dem a dem a dem a dem a dem a dem ba lu xew rek ñu ne leen dem leen taxaw bu ñu fa demee sa ñàkkal seen bopp fayda mu nekk loo xam ne nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci xeex bi waruñoo renoncé wu te waruñu tamit euh, bàyyi ñu ñëw nag ci lu jëm ci wàllum. ñenn ñu nekk ci société civile ay intellectuel universitaire ak ñenn ñoo xam ne dañoo jiite ay parti politique ñoom ñoo continuer di xeex bii di bind di wax di bind di wax ba lu ni mel nag day continuer ba tey ñu ñëw ci lu jëm ci wàllum euh, élection Macky Sall ci sélection la dëkk et non organiser ay élection élection locale moom mooy tànn ñan ñoo war a bokk ak ñi warul bokk suñu liste ba Pikine jàllul yeewi askan wi député ci boppam nee na moom du député mais ragal na boole ay nitam ak député yi toog mu seppi liste leader yi ñu ne ay remplaçant lañ indi teewul ñu gañe leen organisation élection boobu di présidentielle bii di ñëw nag moo Macky Sall da ko war a organiser nee na du dem waxoon naa leen ne renoncé na à la troisième candidature mais renoncé wul ci pouvoir ku renoncé ci pouvoir nag da nga koy jëfe di ko waxee waaye defu ko ba tax na fichier bi cartum réew mi ci boppam moom moo may ne parti politique yi ak ñi nga xam ne dañoo jëm ci élection yépp dañ ko war a teg bët gis que surveiller ko waaye itam kii organiser élection tu ne peux pas être jugé parti mënoo nekk ministre de bu bokk ak ñoom ba pare bëgg a organiser tamit ay élection ñu ne dañoo war a changer ministre intérieur indi fi nag une personne neutre bu est-ce que Macky Sall sax moom ànd naa koo xam ni neutre na wala koo xamante ni nii du dox ci waaw kon ministre de l'intérieur bii ñuy wax ne mooy organiser élection yi dañ ko fee war a jëlee indi koo xam ne day tëddee ñaxaanaay loolu la groupe Yewwi Askan Wi wax ñu ñëw it ci dundinu doomu aadama yi ba léegi Barça wala Balzac ji defuñu benn politique de jeunesse boo xam ne dina fi bàyyi xale li gën a doy waar moom sa bopp amatul ci réew mi mais souveraineté bu ñu jekkoo rek la ñuy wax souveraineté ñoom daal saay bu ñu leen jekkoo ñu ne souveraineté waaw souveraineté ñun dëkk lañ bu moom suñ bopp dugg na fi génn fi mais saay atte jotee ñu war a atte ñu daw deuxième mais alalu réew mi sénégalais ñoo ko moom rawatina jeunesse bi nga xam ne bu ëllëgee ñoom ñoo fi ne jën yi nga jox jël ko jox ko tubaab bi communication nga jox ko tubaab bi pétrole bi gaz nga jël ko jox ko tubaab bi su ko tubaab yi yóbboo booy topp topp tubaab yi ressources yi tant que ñu ngi koy jël di ko génnee di ko yóbbu booy jël gaal yi topp leen encouragé wuñ kenn ci immigration clandestine mais li sabab mbir mi loolu moom moo ko indi moom mooy cause bi dundinu doomu aadama yi ak li ñu war a dundee ci biir réew mi boo ko jëlee jox ko un étranger xale yi topp étranger moom moo waral lii ñu ñëw ci wàllu dundinu doomu aadama yi ba léegi kilo soble nduggukat yaa ngi fii toog ci soxna yi kilo kilo soble kilo yàpp lépp loo mënti tudd ci dëkk bii xam nga suñu demee bañ naan Maroc indil nañu lu tolloog juróomi junni ci ay tonnes di jubilé mais loolu gàcce mënu ko weesu te yow chaque jour nga naan autosuffisance en riz autosuffisance en mouton tabaski du jot mukk te yow jéemoo ubbi frontière yi amoo benn politique boo xam ne di ko def rek pour nit ñi moom seen bopp ci autosuffisance alimentaire mënul ne ba ci soble ci boppam nga yaakaar ko ci Hollande ñu ne la noo suñu campagne bi ren baaxul parce que jant bi léegi lii nga langal ko Maroc te yow nga ne yow pays souverain nga kooku jox la juróomi junni ci ay tonnes soble yow sa ministre du commerce il se permet di jubiler say militants di soble bi ñëw na te loolu nekk gàcce nekk defet nekk loo xamante ni nii gaal gu teer la ñu ñëw nag ci lu jëm ci wàllum li xew Fass Boye ñu jaale ñi nga xam ne ñoom la seen doom des ci biir ndox mi mu nekk nag lu méttee méttee métti mais waa Fass Boye googu de leen dal dal na ci ay gox yu bari Macky sàll bi mu ñëwee ba léegi te moom moo fi waxoon ne immigration clandestine jeex na inondation jeex na lu nekk mu wax ko tey nag la gën a garaaw ñu ñëw ci wàllu mbay mi mbay mii nga xamante ni nii moom la ñuy tiitaroo chaque jour naan ay ay ay ay matériel agricole bi moom lépp mat na léegi léeg ñu wane seen télé ñu daal di génnee et cetera et ñaari doom ñaari euh, doomu aadama bu nekk nit bu ne ñaari kilo engrais moom lañ la war a jox maanaam pour hectare am lu tolloog téeméer cent cinquante kilos il faut nga am juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay doomu aadama yu yeewoo ci biir kër gi soixante quinze têtes soixante quinze personnes pour nga am cent cinquante euh, euh, euh, kilo ci engrais pour nga mën a defar hectare xool leen calcul boobu noonu rek mais loolu fan la ko nit di jëlee ban kër ngay dugg fekk fa lu tollook juróom-ñaar fukk ak juróom ci nit imposable soixante quinze personnes ci ci biir kër suñ kër yi nag dëgg dëgg fa yàlla ñun Afrique lañu ne dinañ dem yenn saa yi ba douze ba quinze noonu la ñu yàlla bindee mais téeméeri nit ci kër pour yow sa tool mën a am engrais bu doy nii la ko Macky sàll ak waa këram calculer mu nekk loo xam ne lu doyo doyo doy doy doyo waar exemple bi ñu leen jox nag ma xawee ca commune u balaa ñu naan dañuy làmbatu nii di wax rek di spéculer nañ ñu tuddal benn commune boo xam ne lii moom moom moom moom moom moo fa am mu nekk nag wàllum jiw gi moom waxaale wuñ sax seeni mbir ñoom nag moom la ñuy tiitaroo njëgu jiw gi ren fii la toll njëgu jiwu gi euh, déwén fële la toll et cetera et cetera te mujjul fenn bu ñëwee ci wàllum licence de pêche yi président Birame wax na ko sànq kooku moom nit ñi dañ cee wax a wax wax a wax a wax mais mooy li ñu expliquer ci jeunes yi rek boo jëlee seen i licence daal jox ko ay borom yu sew yi ñu ñëw fii ci biir dëkk bi jël suñu jën yëpp yëpp bu ñu sàndee benn mbaal rek jël lu tolloog ay toni ba kenn amatoo benn nappkat amatoo jën mais ni ñuy def ñoom ndox mi lañ xam danañ topp ñu yóbbu seen jën nag ci seen i dëkk suñ pétrole bi gaa yi di wax naan ay pétrole bi léegi li buñ ko jëlee joxe ko tamit booy toppaat leen kese suñu alal ji moom fu mu mën a ne nit ñi dinañ leen fa fekk. lii nag moo nekkoon solos conférence euh, point de presse bi nga xam ni groupe parlementaire yooyu askan wi amaloon nañ ko tey gërëm la président Birame gërëm tamit euh, euh, la presse massawu tamit ñi nga xam ni. ñoom la caabi féete ginnaaw yëpp merci beaucoup